ndoxu siti moo ma jàppoon ba mu ñuul kukk waaye na fee ngi may traité ba tey jii yàlla suñu borom bi def maa ngi mën a gisante ak nit ñi te nit ku xees na dëgg la waaye nag itam na fi delloosi na sama teint bi mu bëgg nag lépp loo xamante ne mi ngi koy def yal na ko ci yàlla jàppale fan lu Mbacke te dimbali ko te làq ko fa yàq nekk man bàjjenam maa koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla guddal fanam dina la teral dina la defar dina la di alalam jox te tax te te te jëndewu ko àdduna mi ngi yaakaar toujours yàlla ak yonent bi ak sëñ Fallou Mbacke am na ko yàlla barkeel man bàjjenam ne maa ko gërëm maa ko sant maa ko waxal lii. Yalla

yalla ko suñu borom nangul liggéeyam te may ko guddu fan ko andal ak wax de ama payam man dama bag bag samay doom wa di yi mom la résultat table nañ la ci gis te kuma xam nga am tas, wa am yaram yàqu dinaa na fal fa wax dëgg yalla Amna santam trop sant na ko na. na ko love her. La ilaha illallah salaamaaleykum man la Nana tey dama ñewone euh, ci kër soxna na fi fal Fall pour xol ci produit mi euh, dama ko gis ci télé bi émission bi mo publicité ko en plus ma gis ay témoins ñuy wax nan produit dafa ba mané pourquoi pas man ma ñew essayer xol ba xam lu may jox ci sama yaram bon ba ma fi ñëwé nak gis na fi ñu tok ci souf euh ñi nga xamné rendez-vous lañ fi ñëw mais baxna top d'après ñom liñ ma wax ak par rapport ni ñu meloon ak légui baxna top ñoo ngi xol nak ma ngi essayer xol ba xam lan la may jox ci sama temps

waaw man de sama yaram bi moo ma fi indi woon parce que yaram bi daal dafa am kii daal ay kii fu nekk sama yaram bi dafa ñagas fenn fu nekk dem naa fa faju naa fu nekk dugg naa fu ne daal di faju après nag ci lay seetaan rajo Lamfal FM mu gis ci soxna si ma gis ko muy publicité ay kii ay produit yu ne produit yu baax la ma xaar ma ñëw seet si soxna ba xam ndax mu tànn si ñeneen ñi loolu fi indi tey la neex nga jël sa jaam te buy jël deh, du